deuxième point bi mooy ñu ñëw ci le choix de l'élu le choix de l'élu mbokk yi maanaam bu ñu nee le choix de l'élu nan la ñuy tànnee njiit loolu dañ cee war a taxaw wax naa leen ni nan la ñuy tànnee njiit njiit du caaxaan ndax dañuy wax nu dañuy wax ni annaasu ala diini mulukihim annaasu ala kon nit boo koy tànn li nga war a njëkk a jàng ci moom da ngay xool ndax kii ngay tànn bëgg na réew mi wala bëggul réew mi naka lañuy ñuy tànnee njiit ki ngay tànn li nga war a njëkk a xool ci moom mooy nga xool parcours am

ñeenti candidat yi fi juróomi candidat yi fi ne seet leen ki nga xam ni moo ci ëpp ngor seet leen ki ci ëpp moral seet leen ki nga xam ne lu mu leen musa wax def na ko ngeen jox ko seen carte te gëm ni yéen ay fal te bàyyi wax ju sew ji wax ju sew ji amul solo li am solo mooy na Sénégalais yi génn voté massivement Sénégalais yi nañu voté toog bañ a voté mooy erreur ndax sa ëllëgu réew dañ koy décider sa ëllëgu réew. yaa koy décider bis yaa koy décider sa bopp te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man lam yahtamma bi umuuril muminina fa laysa minna képp koo xam ne mbiru jullit ñi ni muy doxee yitteelu la bokkoo ci lislaam képp koo xam ni ni pénc mi di doxee yitteelu la bokkoo ci lislaam kon pénc mi ni muy doxee yow mi ni ab jullit nga yow yaa ko mën a soppi yow ya ko mën a bàyyi kon ñu ngi woo sénégalais yi di wo julit ñi ñu jël sen ñu xippi seeni bët te xool xippi seeni bët te xool bu nangu ku ger mbokk yi bu leen nangu ku leen ger l'islam accepté wul ger corruption yonent bi daf ko dàq yonent bi nee man xashana fa laysa minna yonent bi nee na ku ñu ger nga accepté ko bokko ci l'islam mbokk yi képp ku ñu ger nga accepté ko yàkki la ger yëpp bokku ci lislaam kon jullit du ay julli ak jàpp ak woor waaye képp ku accepté ku la ger ah bokkoo ci lislaam te ger nit ki mooy nga fekk nit ki mu am conviction politique am nga ne ko kaay ma jox la xaalis ndax nga voteel ma moo xam opposition moo ko def wala pouvoir moo ko def képp ku accepté ger même bu la yonent bi juree génn nga ci lislaam kon nag waxuñu ay sëriñ ak imam même bu la yonent bi juree yonent bi li mu wax leer na fa lay laysa naa man xashana fa laysa minna kon nit ki wërta jaay sëñ Babacar nee na gordu du tiit ba fen waaye gor du ñàkk ba ñànki kon choix bi dafa am solo mbokk yi le choix de l'élu il faut ngeen xam ko ki ngeen di tànn moo yor seen avenir moo war moom moo war a négocier sunu pétrole moo war a négocier sunu gaz moo war a négocier sunu zircon est-ce que kooku bu fekkee Nekul patriote bu bëgg réew mi ba mi gënal ko boppam réew mi gënal ko ay soxnaam réew mi gënal ko gënal ko gënal ko gënal ko lépp est-ce que bu koy négocier dina ci sóoraale loolu le Sénégal d'abord le Sénégal d'abord kon nañu xool intérêt Sénégal bala ñuy xool intérêt kenn bala ñuy xool intérêt kenn choix bi dama ci taxaw tuuti ndax lu am solo la ci contexte bii ñu toll Sénégal àdduna bi yëpp a ko soxla tey ndax réew bu fekkee am na stabilité ñu am armée boo xam ni ay professionnel lañ am ay gendarme yoo xam ni ay professionnel lañ maam am administration boo xam ni dañ ko structuré loolu kenn indiwu ko fi loolu Senghor moo ko def ci réew mi Senghor loo ko mën a contre contre di nga nangu ni loolu réussir na ko tey Sénégal am na réew yoo xam ne yéen a ngi fay dégg lu nekk ay coup d'état ay ay def naka sudul noonu mais Sénégal loolu amu fi alhamdulilah li ñu ko mayoon nag mooy dañu amoon administration boo xam ni ñoom dañu équilibre kenn ku ci ne nekk ci li nga war a ne kon peuple bi rek moo mën a jël décision tey soppi mbir yi wala mu bàyyi noonu muy continuer kon choix bi na ngeen ko xool mbokk yi man nag du ma influencer kenn kenn ku ne am nga droit votel kala neex te képp ku sénégalais yi votel yow yaay toog ci réew mi suñu armée bi ay patriotes ñoo ci ne suñu gendarme yi ay patriotes ñoo ci ne suñu avocat yi ay patriotes ay patriotes suñu juge bi suñu juge yi ay patriotes ñoo ci ne li nit ñi foog amul képp ku sénégalais yi fal yaay falu man loolu laa gëm ndax lu Ablaye Wade mënul woon Senghor mënu ko dama gëm ni Macky Sall mënu ko Macky Sall mu ngi campagne de dem leen ngeen campagne yi yéen opposition bi te bàyyi caaxaan bu ngeen campagneul topp coow li bu leen gañee nag na ngeen am courage tëj seen gémmiñ dem leen ngeen proposer Sénégalais yi programme Sénégalais yi defuñu ku leen proposer programme ñu votel la man loolu laa gëm am na ñoo xam ni ñu ngi déglu programme yi fu programme bu ñu gën a gis seen bopp rek ci la ñuy woote kon choix bi il faut ñu bàyyi ci xel mbokk yi choix bi il faut ñu bàyyi ci xel.